إن وإلى ثمود أقاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها كنك فاستغفروه ثم وإليه إن ربي خريب مجيب سنو سبحانه وتعالى كن من يوحرك رك سي جيروم فكيلو آية سورة هود بوبو دي ني saalix ab yonente la boo xam ne yàlla moo ko fi yónni woon ni nga xam ne ni la fi yónni woon ay yonente yu ko fi jiitu woon mu yónni ko ci waa samut samut nag di ñoo xam ne ñu ngi dëkkoon ci diggante fi ñuy wax Shaam mooy siri léegi digganteem ak ardul xijaas mooy ci côté Màkk diggante Shaam ak Màkk waa at ñin doon waxtaane ci mm, jataay bi jàll ñoom ñi ngi dëkkoon ci diggante yaman ak li nga xam ne mooy Oman jàpp màkk noonu kon ñii day mel ne taxul ñu soree lool lool waaye li ñuy ñàkk-ñàkk bokk ci ay béréb yu ñu nekk teewul gis nga ne kenn ku ci nekk fa ko yàlla yónni woon ak lam doon wax aw nitam moom yonent yooyu boo leen xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk jenn wax ñoo bokk genn kàddu muy la ilaha illa allah ndax boo xoolee yonent yàlla nuuxin lam waxoon mooy yaa qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru ci suratul araf ba tey itam yonent yàlla hud alayhi salaatu wasalaam loolu la waxoon yaa qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru moom yonent yàlla saalix mi itam لول رك لا وخ مي ياقوم يعبد الله ما لكم من اله غيره تو لول وخنا لا موي باتو لا اله الا الله داخ بني يا خوم يين سمو نيت عبد الله جامولين يالا تا خامني كات ما لكم دي دين نيل من اله تي جن يالا خيره جودل موم موي امولين كين كودل موم لولو موي ري معنام لا اله الا الله داخ بوني عبد الله رك mooy nee nga laa ilaha boo nee min ilahin xayru nag nee nga illallah mooy amul jenn yàlla ju ñu jaamu ci dëgg judul yàlla yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla kudul moom moo tax boo ne maa di leen ñeel min ilahin ci jenn yàlla xayruhoo judul moom loolu mooy laa ilaha illallah muy kàddu gi nga xam ne moom la yonent yépp indi woon yeneen ci yàlla saalix mi itam dikki ko ak ñi nga xam ne mooy waa samut ñooñu itam nekkoon ay nit ñoo xam ne suñ boroom joxoon na leen kàttan lool ci seeni jëmm ba dañ daan yett ay montagne di ca di ca dëkk di ca tabax ay ay ay di ko dëkk ci lu ñu yor ay jumtukaayu machine ngir rek kàttan goo xam ne yàlla dénkoon na leen ko teraanga lool doona ko wax ci suuratu shuara boroom joxoon na leen teraanga lool ca kanam dana wax ne fii jannaatin wa uyunin muy ay sarde ay ay dër yu naat ak ay ndox yu neex ci ay xeeti bëti ndox yuñ daan jariñoo aki tool aki i meññant ak ay dëkkuwaay yu yu yu yi naan yu ligs yu mucc ayib yoo xam ne daan nañ ko defar ci seeni jamono waaye tiwul bi yàlla yónnee ci ñoom saalix rek li ëpp ci ñoom dañ ko dëdd woon wan ko ginnaaw daal di koy wedd wedd goo xam ne ak rëylu rek moom moo ko sababoon mhm. moo tax suñ boroom subhaanahu wa taala ñoom it daf leen a mujj rek alak njëlbeen gi nag ñu gis fi nga xam ne fi la saalix wootee ak discours yi nga xam ne moom la njëkk a def ak ñoom te la ci jiitu rek mooy jaamu leen yàlla تخمن موم رك نين ام امولن كين كودول موم تايتام هو انشاكم من الارض موي كيغا خامن مولين سوس سي سوف موي كيغا خامن مولين بند تايتام سين تيسان موي سوف منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ndax ñepp ci aadama lañu bàyyiko ak xawwa te yàlla mi nga bind aadama ci suuf waaye tam wastaamarakum fiha واستعمركم فيها موي مو defa leen نين مانا دوندو سي كاو سوف nga xamne suuf sun borom moko tanmiye moko ko defar bañ ko dekk wa sama banaynaha yàlla mo tabax asaman allahu allazi rafaa as-samawati bi xeyri amadin tarawnaha suuf si it mu ne wal arda farashnaha fa nihmal mahidun manam suuf si it moo lay moko ko lal ñu man ko dekk moo tax mu ne wastaamarakum fiha mu defal leen suuf doon lu ngeen mën a nekk di ci dund seen li ngeen soxla ci ay jàppanda lépp yàlla ràbbaale ko ci suuf kon nag fastaxfiroo jéggalu leen rek seen boroom fas fastaxfiroo jéggalu leen ko su ma tuuboo ngeen tuub ilayhi jëm ci moom da ngeen jéggalu seen boroom te ngeen tuub jëm ci moom te xam ne inna rabbi qaribun mujib inna rabbi mooy wér ne sama borom day xaribun ku jege la te itam mujibun kuy wuyu ko ko woola ñetti tur mi ngi foofu ci turi sun borom yi muy rabbu ak xarib ak mujib yàlla boo gëmee ne mooy sa borom gëmit ne xarib la ku la jege la wa nahnu aqrabu ilayhi min xablil warid nee yàlla moo gën jege jaam bi buumu xolom nga xam it mujib la kuy wuyu ko ko woola loolu bu dajee ci nit rek faaw nit ko dana am tawakul dana am tafwid mooy dana wakkilu ci yàlla wakkilu gu mat sëkk dana joyal mbiram yépp ci yàlla ndax dana xam ne yàlla lépp lu jëf suñ borom mi mi ngi tàbbi ci gis-gis suñ borom lépp lu mu wax it ngi dugg ci dégg-dégg suñ boroom mu xam ne yàlla jege na ko te bu ko woy mu wuyu ko mhm.